déroulement bi ni muy doxee wat bi rafetlu naa ko parce que niñ ko waxee woon rek nit ñi defee nañ ko ni nit ñi génn nañ ñëw ci bureau yi bi ñëwee ànd nañoo ko yar ak i teggin ñu ngi wate normal benn problème amul nañ fexe ba loolu ñu wéyal ko fu 6 heures jotee bu ñu defee dépouillement bi kuñ gañe nga xam ne gañan la ña nga gañe félicité la kañ gañe ka gañe sant yàlla te xam ne organisation bi gisoo gisuma ci benn rëq-rëq wax dëgg yàlla am ñu ngi dox normal. wax dëgg yàlla mi ngi dox normal li ci des kay nit ñi nañ fexe ba ni ñu ko tàmbalee ñu continuer ko rek ndax man wax dëgg yàlla lii laa bëgg lu transparence lu dal lu tege ci yoon lañ bëgg loolu daal lañ wax nit ñi muy département bi ñëpp daal nañ xam ne Sénégal weesu na fu ñu defee ay élection nit ñi xuloo ko xeex aka yàqante yooyu dafa xew yi bokku ci démocratie tey it ci luy doxal am réew daanaka wat bépp boo xoolee benn bis la élection yëpp benn bis ku ci def lu ñaaw da ko rëccu ku ko ci wax da nga ko kon nag nit ñi kenn ku ne am nga sañ suñu na seet kala doy nga wateel ko loolu mooy démocratie gisuma fi yenn influence yoo xam ne nit ñaa ngi ko fi defagul loolu mooy ñaan nag candidat yëpp nañ sàmm loolu ndax ñun suñ président Pape loolu lay dund loolu la sëñ Mountakha Bassirou wax dëkk bi nañ amul yar ami teggin parce que Touba dafa war a nekk exemplaire ci adduna sépp li ngay dégg Touba ci suuru élection yi doo ko dégg ci benn dëkk presque te ñun ñi nekk ci di si kenn ku ne da nga jiite mbooloo kon nañuy wax nit ñi dëgg wax leen li nga xam ne day amal njëriñ nit ñi waaye nag di leen wax loo xam ne day tax nit ñi xeex njaboot yi nit ñi di ami problème yooyu dafa jeex ci àdduna si élection jël sa carte seet kaladoy nga dugg watee ko wat sa carte la waaw boo génnee nag loolu yàgg sa digg ak kala watee la jërëjëf Serigne Mame Mbaye Niang may fàttali ne yow yaa tête de liste quoi bokk gis-gis liggéey fii ci département bu Mbacké